Rewmi 24 TV dala leen ak jàmm mbokk yi Ousmane Sonko digganteem ak Mame Mbaye Niang ba léegi coow la wàccagul ndax bu ñu xoolee rek sortie bi Mame Mbaye Niang def ma ngay wax ne daal Ousmane Sonko dañu ko war a tëj jamono yi ñu toll nii gis ba nga xam ne nag moom moo projet ma ngay xamle ne kii Ousmane Sonko daal kenn mënu koo tëj ci dossier boobu nga xam ne dañu ko amande woon lii di 200 millions ak 2 mois jours yi moom mooy mooy di Mame Mbaye Niang nag 200 millions yooyu nga xam ne ba léegi daal jotagu ci ñu bari ci Sénégal yi ñu ngay wax ne moom rek la bëgg a jot fi mu toll nii moo tax muy génn di wax ne Sonko nag taxaw na ne Mame Mbaye Niang daal du jàpp fukki dërëm comme bokk Mame Mbaye Niang dina jàpp fukki dërëm te ñu bari nag ñu ngi wax ne Mame Mbaye Niang daal torox tàngi Ousmane Sonko rek lay wër jamono yiñ toll nii te saa su ne ma ngay wër lu daaneel dem na ba jeex dem na ba mu lépp def na ko waaye Ousmane Sonko ma nga toog ci këram jàpp ñàmburam di dund dundam ak i famem kon daal Ousmane Sonko ak Mame Mbaye Niang fan la mujjee ndax bu ñu xoolee rek kii di Ousmane Sonko nee na du ko jox fukki dërëm